e xoytame te ne xoyanum jabater te yaay leyti aca i leya nuun e final fe xa wara ba dem na keng waxu dem na ndeñ taali mane lu doon jaay tey mu lambu xutar xutar be xabar xabar bi ku ci yàqoon waxu jàmbur dang ko defar final poids léger fii ci Sadio Ga diggante Etienne Diouf moo ñëwoon gannaaw ak ki nga xam ne moom mooy Ablaye Ndong Fissel Ablaye Ndong Fissel moom lañ jàkkaar lool ba na damay bëggee képp kuy bëggee Zilo TV ku ci abonné gul laal cloche notification ee eh, fii la di leere nee naa la waag waag na cër yoo waaye day tax ma bëggee suma waay suma xarit suma mag Grand Ousmane Badji bëggee naa ko Grand Omar Mané kontaanee naa ko मुसाचारे बुएल पांडी लोग सोशल दे टूले टामांगी कोई कोटा ने मामा डुंडंग परम सिंह बोयार कोटा ने ना को परम एसपाई वाइटम सिरफाई सुमगरा गराटम सिरफाई मांगी कोई सियार परम इटली कोटा ने ना को गरामोड परम इटली बेगे ना को परम गाडो नेसान मांगी कोई कोटा ने Assane Ndong l'ambassadeur maa ngi koy bëggee Abibou Abou Gueye kontaanee naa ko Yvonne national bëggee naa ko de Abdourahmane Ndong maa ngi koy kontaanee borom simal borom mbar faafa ko grand papol siyaar ko borom jiloor ji jak Momar borom jiloor ji borom samon Bayu Daba Sarr ko daane naa ko ndeysaan ndeysaan ñoom ñaar ku ne am na loxo ci ngemb Ablaye Ndong Fissel Etienne Diouf Mamadou Borom Fissel bëggee naa ko ndeysaan waaye Davido borom Fissel Beuz doomu Fissel la maa ngi koy siyaar laa ilaha ba ba ci door ci suuf Etienne yóbbu na Ablaye Ndong Fissel def cinq Etienne